kon ñu jox accueillir ko ñu jox accueillir garmi oh way dañ la namone bay di ne ko mu naka telephone yalla bo numéro dañ la allah la namoon naa dañ la namone bay sa neex na eh bi nga ko ba ba diw ko wa koy ni ngeen ko gëjee gis noonu la ko gëjee ko woon gis euh, ñun ñii liggéey ak kii nag moo leen gën nuyoo ah moom mi Assane nuyoo baax na ah, ah nu mu la nuyoo nuyoo bi dafa baax nuyo na la nuyu xale yaa waaw waaw nuyoo baax xam nga dafa koy yéen seen nuyoo seen nuyoo baax zéro mi baax maa ngi laa delloo ziar mais la dañ la namoon lool dañ la namoon lool mbay namm naa la wallaay maa la raw mbay sama rakk mbay namm naa mbay maa la raw lool. xale itam ñoom ñoo la gën a namm. <laughs> comment vas-tu ça va ma nièce. su sukk jóge na de. <laughs> ah mais mais mais Oustaz. Euh, la gan bi nekkoon yow njëkk nga yow mais ah, réew mi réew mi ba tey. wallaahi ana El Garmi ana gar mi wallaahi démb bi ñu toogee yàlla xam na ni sama xel a ngi woon ci moom waaye xalaatuma jëmmam ji mbaxanaam mi laa doon xalaat Sophie doo ñëw nuyu gar mi xanaa nam moo ko woon Sophia waaye waaye moom yàllaa ko defar muy muy xaritu ñëpp alaaj wallaay mbay bég naa de mu ànd ak contentement bu mag maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi yëpp ku ci nekk ma jox la sa cër bi la yàlla jox waaye Baye Cheikh dama jooy bi ma tabbee léegi ba agsi ci kër gi ba jaar ci en jaar jaar ci tapis rouge bi waaye kan mooy Leila Evans waay sama xel nag daldi di bi daldi di dem ci ki nga xam ne kii tubaarkal la lu xew mooma kooku mooy kan mooy président Youssou Ndour dëgg la Abdou ci Fouta Gansir ci Gambi Aldemba Njaay mi ci Ñooro Ablaye Daaro Mbaar Matar Daaro Mbaar ma jama Yaasin Taw mi ci Loodo eh boo amee patron day gën ak noo gën patron. Mm. boo tàbbee ci kër gi ba ba ngay agsi da xam ne daal dëgg dëgg dëgg ki jëf lii du cuune. Mm-hmm. waaye nag Baye Cheikh fii maag yow ñoo ko inauguré. wallaay ñoo ko inauguré woon naa day barkel de. wallaay barkel na. académique bii. Uh-huh. ca kaw ca kanam ca kanam rek lay jëm. wallaay Mbaye waaye kontaan naa nag ci yow. wallaay Mbaye wallaay Mbaye. Mbose ak Farmata magi Baye Cheikh. waaw magi Maodo sama bos. wallaahi wallaahi yow yaay pareem. wallaahi may pareem wallaahi wallaahi di kontaan nag ci ñi ma ak accueillir bii ngeen ma accueillir. dañ la namoon lool mbay. kër gii Amadou Mbaye Garmi maa ko sanc waay. bii moo ko sanc bii Amadou Mbaye Garmi loolu yàlla doxal. moo tax dëgg-dëgg bi ñu nee dañuy waxtaani seen Babacar. am na luñ ci coof. ma ne wax dëgg yàlla Baye Cheikh su ma ñëwee dinaa la ñaan ñu ñu waxtaan ci sëñ Mansour si borom daara ji. Mhm. billaay les yi dama ne bi noo bëgg kër gi ci moom la ñu tàbbi moo nu accueillir boobu signal bi kenn na mënu koo jox. mu ne ñu deux mois laa leen may deux mois yi tegul tegul tegul benn fan tegul une seconde. ñu ñu jox lu signal bi tubaarkàlla ñu tàmbali bi kon moom tam war nañ ko delloo njukkal. defal ko waxtaan boo xam ne spécial lay doon. te xam ne lu boobu cër moo ko moom. as daw maa ngi laa nuyu. ndaw saa ndee ne borom ndukumaan moom sax moom sax bëggoon naa mu dugg si borom dani ci ndukumaan bëgg naa mu dugg si Amin Diallo ndaw dama ne tubaar kàlla kii bu dee ñëw eh. war nañ ko wax ne yaay ñëw moom na dugg si ndax dëgg bàyyi daara <laughs> yaas na kooko yaas na na ñëpp jóg taxaw <laughs> bàyyi Cheikh accueillir leen ko accueillir bu ñu ngi leen rek lañ ko waaw loolu fort na. waaye moom delloo euh, bu njëkk bu quartier général tey émission bi nag dafa teel a ala ndaw mais noonu lañ leen di gunge ba fajar euh, ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ñu ngi delloo siyaar ndaw bëgg nañ lool ci teewaay bëgg nañu lool waaw mën nga mën nga toog nii euh, bu ko defee ñu waxtaan ci projet bu am solo jëm ci